sëriñ Mamoun yàlla yàlla doole leeram sëriñ Mamoun taalibe Baye Akan la ñun ñëpp réerewuñ li wax ne man jaay naa ndoom gi jënde ko taalibe ca ba may doon ndaw alhamdulilahi rabbil alamina taalibe bàyyi yëpp amel nañ ko galak li ñu wax impôt kuy taalibe Baye foo mën a ne ci réew mii ak ci bitim réew ak noo mën a day ak loo mën a am nangu ne Serigne Mamoun xidma ne Cheikh Ibrahima xidma buñ gërëm dale ca bàyyi Niass ca ba muy ndaw dale ci mbooleem xulafaawu Baye Niass yi dale ci mbooleem doomi bàyyi Niass yi tënk baax na rek ñu xam ne daana wax ne ay bu ñu xamoon sama éni ci liggéeyal Baye danañ takk buum sama baat di ma omat fu leen neex may ma chance ma liggéeyal Cheikh Ibrahima Niass ñu jëm jilee xaar na 7 juillet allah ci bis boo xam ne ziyaaraam la mooy dellëku alaaji Abdoulaye Ibrahima Khalifa Baye lañ ko tuddee ak Macky sàll président réew mi ak Mohamed Siis buuru Maroc ak mboolem àdduna bi ak mboolem jullit yi te yaakaar naa ne itte yi bu kawee danañ gis ci xew mii loo xam ne mosuñ ko gis ginnaaw xew Medina ak ziyaara Medina ak Taïba seen yaakaar naa ne julee xaar mooy xew bi gën a kawe ci pays bi kon jullit dafa ko bokk talibé ko bokk la ma waxoon ne ñëpp nañ ko nañ ko fay nañ ko ñëwal te maamun maamun ñëpp la Cheikh Maamun nekk nekkoon gaynde lool boo xam ne nekk jàmbaari fàtt bu tëdd boo xam ne xàmmewul guddeeg bëccëg ci liggéey bi muy liggéeyal yàlla amul lenn lu koy gàllankoor ba du dem dégg nga fi nga xam ne moom la bëgg a dem pour yóbbu fa njariñ boo xam ne dafay tasaaroo ci àdduna yëpp kooku dañuy fàttaliku tey eh, bés bi nag alaa daw dawme ci man ndax biñ ne Cheikh Mansour wax ma léegi ne ma dañ koo boole moom ak sama sëriñ moo Cheikh El Hadj Abdoulaye ibni wala Cheikh Ibrahim Niass ma ne ah kon de julli xaar moom mus ta ñàkk a nekk sama julli xaar ndax Cheikh moom dafa am fu jaar ak man àdduna yëpp xam ko tey buñ naan conférencier bi moom ma njëkk a jaarale ci yoon woowu di ma ci pousse di ma ci encouragé daan ma jox micro di ma encouragé ca woyofam nga ca yaatoom nga ca mën a uufam nga moo ma uufoon di ma pousse ba tey ma ñeme yàlla ma ko yàlla fayal te def na ko lu man rek def na ko ñu ci ndaw yu bëri ci pays bi kon bésam man ku ma ci dëgg moom na dama massa incha allah waa Julexaar yi ñu ngi leen di ñu ngi leen di fàttali fu ñu mën di déggee wax ji ñun ñëpp nañ bokk fuublu bésëb sëñ Mamoun boobu ñu xam ni bis bu màgg la bis bu rëy la bis bu rafet la bis bu neex la te gannaaw yàlla yonent bi kenn xëppale ñu ci ñoo ko moom nit nag lu moom fa koy bëgg fa koy fonk fa koy faydaal bon maa ngi leen di sant maa ngi ngeen góorgóorlu yéen jigéen yéen góor yéen mag yéen ndaw xam xamul xëy ji xamul seen ndax maamul kat ka jëliwutoon seen i toon million bu mës a joxe wala million yu mës a joxe du góor du jigéen du taalibe murid du xaari du tijaan du dara ñëpp ñoo ko bokk maamul nit ak la boo xam ne yàlla la doon liggéeyal ak baayam ak yonent bi a Cheikhu Tijaan looloo ko taxan a jóg politique bii ñu naan maamul politique maamul politique ut politique bi def ko mbubboo bu di wuti lu mu di jox jaami yàlla yi te yàlla rekk tax looloo ko ci dugal waaye génn naa ci yàlla ak yéen bi maamul bëggut yëpp di nuyu mboolem jullit mboolem Sénégal yëpp waaye di jagleel mboolem taalibe Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ndax sëñ Maamoun nangu toon am daayira nangu toon am fédération Oustaz Abdoulaye Thiam xam na li may wax waaye nag ni mu bañee woon ñu suul ko ci weti baay magam ju tedd ji ak rakkam yu tedd yi ak borom xalaat yi gis ne déedéet nañ ko delloo fii mooy cëram noonu lay taalibe yi ne déedéet ñun tam foog ñu delloo njukkal sañ Maamoun foo ñu nosee gannaawam foo ñu defar ay daayira pour jàpp ci waa ji nga xam ne nekkalu toon boppam yàlla la nekkaloon kon ñu ngi oo mbooleem jullit yépp mbooleem taalibe yépp ñu ngi leen di yëgal bés bu màgg bi nga xam ne mooy bésu kenn ci doomi pays bi kenn ci liggéeykatu pays bi muy Cheikh Mouhamadou Mamoune Ibrahima Niass nga xam ne ñu ngi ko jàpp le 7 juillet 2018 ci Jilaxaar ñu ngi ciy oo mbooleem jullit yeeg mbooleem taalibe yépp bés bi nag ñu ngi ko jagleel Mawlana Cheikh Alhaaj Abdallah Ibrahim Niass ngir xam-xamam ngir njubam ngir taxawaayam ci njabooti baay gi ngir téye bi mu téyewoon ci loxo sëñ Maamun ak mbaggam di ko jàppale ngir li sëñ Maamun waxoon ne dañoo màgg fekk la yow Alhaaj Abdoulaye Niass nga jàng ñu góor góorlu jàng ngay liggéeyal baay ñu góorgóorlu liggéeyal baay comme li Mawlana Cheikh Ibrahima Niass waxoon ci Seydi Cheikh Alxaaji Khalifa Mouhamed Niass keroog ba mu koy mételal kon Cheikh Mamoun mu ngi ziyaara ci xam-xam ba ci yar ba nga xam ne nettalal na ma ne ma ànd naag bàyyi ñu wàcc benn aéroport bàyyi nag ko am na xam-xam yoo xam ne da ngay jàng waaye am na xam-xam yoo xam ne dañ lay dóor ci bopp ne la xamal Mamoun boo bëgg ma defal la ci mu ne ko defal ma li nga mujjee wax mu ne mu jël kaamil dóor ko ci bopp bi ne ko ilam xamal kon man gëm naa ne Cheikh Mamoun xam-xam yëpp mi ngi woon ci dënnam eh, xëy na yu bëri feeñu ci wax ci waaye yàlla ku ko mayoon fatul bari la kon kooku la ñuy ziyaara ku tabe ci jaamu yàlla yi la ziyaara te ñu ngi jëm ci nawet ñu ngi jëm ci jamono ju jafe ñu ngi jëm ci ay élection ñu ngi jëm ci ay soxla yoo xam ne jafe-jafe yi bëri nañ kon nañ taataan ci bés bi koo xam ne ku tabe woon la amaan na yàlla faj suñu aajo maa ngi oo ñëpp bàyyiwuma kenn muqaddam yi taalibe yi soppe yi yi law la ñeseen ak mbooleem këri diine yi ci Sénégal yépp maa ngi occasion na di leen ko yëgale bés bi nag wax nañu ne président Macky Sall moom lañ ko jaglele en tant que njiiti réew en tant que nit koo xam ne nit ku baax la ñu ngi koy tuddee bés bii nii euh, moom ak pré buuri Maroc euh, Mohammed Sadis ak euh, président Égypte muy Abdel Fattah Sisi nga xam ne Cheikh Mansour am nag relation ak ñooñu ñëpp ñu ngi yaakaar ci loolu relation yu yokku ndax moom Cheikh Mamoun borom relation la woon ah te kóllëre gannaaw lay féeñee féetee mu nekk loo xam ne ni jubluwuñ ci lu may delloo si démb ak uh, ubbil bunti jaamu yàlla yi ñu gën a mën a jëriñu ak njaboot gi su ko defee uh, ci kaw loolu tam ñu ngi yëgal gouvernement bi yëpp bés bi waaye ñu ngi ko yëgal tamit mboolem opposition bi yëpp képp kuy parti ci réew mi képp koo xam ne ni yaa ngi politique te Sénégal tax laa jóg képp koo xam ne politico social ñëpp sëñ Mamour ñëpp la fi nekkaloon tëjuñ bunt bi ñu ngi ko yëgal ñëpp ku ci mën a teew nga teew ci te yàlla tax ku ci mën a taxaw nga taxaw ci te yàlla tax yàlla waanuñ nag ñaanuñ kenn talaluñ kenn waaye ñu ngi talal yàlla loxo di talal jullit ñi ak jaam yàlla yi di laaj seen xalaat di laaj seen taxawaay ci bés bi ak seen i mën-mën yoo xam ne nii luy jëriñ ñëpp la ñu bokk xalaat ñu ñëpp ñu boole gën a organisé wu ndax ku bëggoon organisation moom la ñuy ziyaara ku bëggoon nit ñi nekk benn moom la ñuy ziyaara ku bëggoon Sénégal ne ca kanam ne ca kaw ba ilif Afrique ilif àddina bi kooku dañuy ziyaara muy Cheikh Mamadou Ibrahima Niass